yaa xayra dayfin ataa bil bizi wal madadi wa sahlan wa tarhiban bila adadi yi ñu ngi dellu si waat ci naafile yi nga xamante ne ñu ngi koy jëlee ci téereb Sëriñ Suhaybu bi ñuy wax Xurratul Ayni dafa wax ne guddi juróom ñaareel ga ci weeru koor ku ci julli juróom benn raka raka bu ci mu jàng fatiha benn yoon jàng xul yaa ayyuhal kaafiruuna juróom-ñaari yoon jàng xul huwallaahu ahad juróom-ñaari yoon laaya ju na dees na ko ci bindal aw yiw dana mel ni itam ku saraxe junniy dinaar te lu mu ñaan yàlla dana te lu mu ñaan yàlla mu may ko ko te dees na ko bindal tuyaaba yu ni li mu bisi àdduna yépp araf wu ci ne dees na ko ca tabaxal njëndi lu rëy ca àjjana jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah bil